bien que télévision future média ben waxtu jot na kon xibaaru digg bëccëg gi ca la ñuy àgg seeg yéen la ca gën a fës jege na kon juróom-benni téméri nit yoo xamante ni at mu jot danañu ñàkk seen bakkan kon ci tali bi 2014 xayma googu la kon protection civile ci wàllu woowu nag seeti nañu ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu dem ak dikk bi chauffeur seeg nit ñi ñoom nag gannaaw njàqare nga xamante ni am nañu ko ci yooyee chiffre le nañu ni responsabilité bi moom faaw ñu séddoo Diop ku ne am nga ci kon euh, sa wàll terewul nag ay pexe jibal nañu ko euh, ngir néew yi ci tali yi lim bi wàññiku euh, bu baax assemblée générale SAES e waxtu wi kon ñanga ca ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru noonee nag la ko jàppee ci bépp université kon fii ci réew mi syndicat boobu nag fas yéene kon déroulé lu jëm ci plan d'action mu ci biir campus yi samedi ji kon lañu ñu daal di jeexal seen ñetti fanu banque loxo yi ñu dogaloon daal nañ koy xayma kon na xol nak ci lan lañuy deugmal nañu ci dellusiwaat attaque euh, suñu ndaw président Macky Sall moom euh, xam le kon euh, weeruk mai ci lu suqali Casamance dana fi amal ab conférence partenaire yi dajale fi kon bailleurs yi manam ñi génné koppar yi ngir ñu xol gox bobé kon nuñu mëna def ba ci projet yeeg mébét ya ñu fa lal mu jëm ci kanam tagat yaram dana jëlu kon ci douzième journée Ligue sénégalaise waaye it yi nga xamante ni amaloon nañ ko ci njaxtalu waye bés bi ci lu soxal Afrique mu di euh, Ngor ak Pikine euh, nañu ca taxawee dossier bi tey jii ñi ngi ko jagleel euh, njàngum ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo wàññiku kon ci wàllug cër gis nañu ni foofee sooke na bu baax école yi néew na matériel bi ñu yittewoo kon bariwul waajur yi it xam le ni ñoom booy xool ñooy def lépp ba waral sonn nañu bëgg nag nguur gi gestu leen danañu jeexale ak revue de titre ponk yaa ngoo ko listuut ñu yaatal ko

vitesse def lu la neex eh, ci tali bi loole lépp kon eh, daat nañu ko eh, siiwal ba waral gis nañu ni responsabilité yi moom faaw ñu partagé ko nguur gi itam ci wàllam saafara si it du ñàkk ñu dellu si ci xëy na balaa xibaar xëy jeex ak bi nga xamante ni Pam Ndari Fall defal nañu ko ci tali bi lu jëm ci mbirum njàng njàngale mi gannaaw lii di kon tali bi SAES moom mu ngi wéyal xeexam syndicat jàngalekat yi nekkee ci daara yu kawe yi yi waxtu wi kon eh, mi ngi yamal assemblée générale am eh, ci université yi bi ñu jàpp fii ci ndakaaru Cheikh Anta Diop moom jeexagul eh, ñanga kon ci ndaje bokku nak ci lañu bëgg rek wéyal kon sen plan d'action bobu jublu nak ci plan d'action sectoriel bi ci biir campus yi mouvement bi nga xamante ni nañu ko ñetti fan yo xamanteni dañu bank sen loxo samedi ji kon la jeex lolé nak nu muy mujjé sen yëngu-yëngal gogé ñom ñoom kat yi ci daara yu kawe yi du ñak ñu del ci euh, gannaaw li nga xamante ni moom assemblée générale ba ñu xëyee euh, foofee kon ca daara ju euh, kawe président Macky Sall moom wax na ko nee na weeruk mayit la ko jàpp benn conférence lay doon ci wàllu partenaire financier ngir nag xool procès mébét ya ñu tekk ngir lu suqali Casamance nu ñu ko kon mën a doxalee noonee waral danañu def benn conférence des bailleurs ngir relancer activité économique yi foofee ca Casamance moom président Macky Sall que yooyee kon euh, ci l'œil de couleur maanaam ñu drapeau kon euh, palais de la euh, république wax ci lu soxal rek mbirum yoon nak ñi nga xamante ni dem ci a yi ku nekk ak la nga ni la fa ci orientation tribunal xool la nga yittewoo kon nga daal di cay def ko loolee kon xool nañu bi ci woon nu muy doxé dinañu ci del dellusiwaat ak suñu reporter euh, Maymouna Ndiaye mouvement des entreprises kon du Sénégal MEDES ñom taxaw nañu ngir xeex kon walu chômage ak 13e édition euh, forum du premier emploi euh, ci walu woowu nak njiital MEDES xam le ni di ñakum xëy mi moom mi ngi fi batay ji deñu fi ba waral nak mu sumb kon mi ndaje ngir xol nu ñu nees ci mëna a taxawoo ndaw ñi ci walu woowu jëwriñ ju ñu dénk wàllu xëy mi ma nga fa woon moom ak pexé pexe may noppi toppit euh, gone yi nga xamanteni ña nga fa won ci la len euh, yëkëti mu di reportage Aïssatou Pay Fall caméra Amza Diallo ñaari téeméeri junniy ndaw at gu nek sur le marché de l'emploi ba tax ñu wara tek ay stratégie yu bees ngir xex ñak xey bu tax xol it fi mbir mi di ñuulee loolu waral Mbagnick Diop président MEDES ak sa thème ci walum entrepreneuriat. ñaax xale ñu créer sen entreprise parce que boy xol tay ut xey baxna parce que ñaari sal yëpp ay entrepreneur nga fa ay chef d'entreprise pour utal leen xëy mais lu gën a wóor mooy nga dem créer sa entreprise loolu la ñuy wax auto emploi ñu ñoo évoluer concept bi tuddee ko auto entrepreneuriat mooy ne xale yi boo leen amee projet mu ngeen créer seen entreprise li gën a métti mooy am xaalis boo créer sa entreprise moo tax nañu ab def ay mécanismes yoo xam ne mun na leen financer ba ñoom ñu créer seen entreprise boo créer sa entreprise automatiquement am nga emploi sa boo leen nekkee ñaar ñett bokk ci secteur bi ngeen diplômé mi ngeen dajale créer seen entreprise donc loolu mooy concept auto entrepreneuriat. Mansour Sy jëwriñ bi yore wàllum liggéey di fësal initiative yi nga xam ni nguur gi jël na ko ngir faj bi le mbir. am na projet yu bëri yu mu taxawal te projet yooyu yëpp ñu ngi fii taxaw mu taxawal ko pour xale yi. am na lu bëri lu mu def jëmale ko ci mbay mi loo xam ne dafay ubbi liggéey yu bëri ci fànn boobu te gouvernement bi taxawal na ay cër yoo xam ne yi maanaam stage ak apprentissage boo xam ne dina leen permetre bu ñu duggee ci entreprise bi ñu wut qualification yu bëri yooyu ba nga xam ne bu ñu bëggee liggéey it mu gën a yomb ku ci nekk yéene bi nga ko am yàlla bu yéene tas kenn ku nekk li nga xam ne lii mooy méngoo ak sa jàng nga mën koo am. ba a jëm kanam. yu mujj yi nag tax nañu insérer ay jeunes yu bëri ci entreprise yi MEDES fas yéene di woyal liggéey googule ngir jox beneen chance xale yi le ba ñàkkum xëy yi wàññeeku. département Podor ñëwoon ci Ndakaaru kon ni dañuy mobiliser wu ngir li nga xamante ni moom mooy wàllu mbayum ceeb mi ñu fexe ci daal ba euh, la cay génne askan wi yëpp kon di ci mën a dund ca noonee ñu dem ca marché euh, Castor xool ceeb boobee kon euh, ceebu mbay mi lañ koy wax njarte geeg yu ni mel nu mu tëddee gis nañu ni kon ci wàllu woowu des na bu bari la ko waral rekk na diggante qualité ceeb bi ba ci njëg gi reportage Codé Ndiaye caméra dama koy béy li ngay dundee ci wàllu ceeb muy mébétu njiitu réew mi président Macky Sall fii ci marché Castor njartewu ceeb waalo bi demewu fa noonu melokaanu ceeb boobu bokk na ci li ko waral. ceebu waalo daawoon nañ ko jaay nag mais instant dañ ko gëj a jaay parce que daa xawoon a bëri ay xeer ak yooyu nekkul si sax mais pour client yi des fois leen jaay ba pare ñuy kaas. client yi dañ ko jënd waaye dafa gën a cher que ceeb bi ñuy importé ba pare xaw ëpp coono tuuti ndax nit ñi xamuñu ni ñu koy toggee. bi ci yomb tuuti dafa xaw a dafa xaw a moom liggéey bu mati. am na ceeb yoo nga xam ne. bu fekkee ni bu fekkee ni client bi xamu ko dëgg dëgg dëgg. du ko nangu jënd. soxna si di xam ne ne ceebu waalo bi sakkan na naam waaye war nañu gën a xalaat lii di melokaan bi. man de pour le a toggatuma ceebu mbay mi parce que dafa bari poussière bari tànn am ay xeer daal. buñ ko defaraatee tuuti mu gën a bees waa wàññi poussière beeg tànn bi daañ ko préféré sakkan na ci jaboot bi torop ci jamono jii nu toll nii ceeb bi moom baax na fi. mais dafa am rek touti défaut bu ci ne. jaaykat bi gisee neneen moom li mu xam ne rek mooy lu ëpp ci client yi ceebu walu bi moom moo leen gënal. fi mu toll ñu ngi koy jaay mu baax moom ko koy jaay man maa ngi ko jaay baax ndax sama client bari fi mu toll nii moom la jël. client yi bëri dañ ne buñ ko toggee day day gaaw res quoi moo gën a rees kaw yeneen ceeb yi day gaaw res rees waaw yow mën a reesal quoi. mën nañu jàppale pour mu gën a wàññeeku tuuti moom. béy li ñuy dundee ci wàllu ceeb doon na lu war a mën a nekk bu ñu sukkandikoo ci kàddu jaaykat yi waaye faw nguur gi def ay moyens ndax qualité bi gën a mucc ayib

yaa ngi dégg ma daal di dox dox dox dox mun ma xam fu may jaar yaa ngi dégg il a fallu ko ma delluwaat kër ga ma daan waxtaan ak benn sama benn xarit mu ne ma dinaa la booleeg teel gendarme yaa ngi dégg moo ko laajee bon dana la am dana la am ku mu la mën a boole pour accéder à ton dossier noonu laa delloo ñu booleem ak moom ma daal di ñëw ma déposer le dossier mais pour ma am suite favorable jusqu'à nos jours je l'ai pas après mujj ji dama mujj des ak sama certificat de mariage bu ñu ma defal ci biir jàkka ji jour sëy bi. dafa Dieng moom it loolu la nemmeeku nee na musta ñëw palais de justice te du fa yàgg. am na yenn kayit yoo xam ni xanaa man sax bu ma joxoon ma rempli ko rempli rek la joxe signature ak ak cachet da nga ñëw ñu la demal fee te or ko du foofu. soxna si wuteeg lool ak ñoom ndax nee na li mu seetlu mooy liggéeykat yi ñu ngi góorgóorlu. ci biir jàmm ak salaam ak accueil bu baax laa fa gis waaw ñu toppatoo ma bu baax ma defar samay këyit mu ngi nii maa ngi ñibbi casier judiciaire. wala damaa présenté carte d'identité bi rek ñu ne ma demal toog ma toog après ñu dem ut defar ko kii ko ñëw jox ma ko. ñàkkum collaboration ak tamit ñàkkum liggéeykat bu doy loolu la acteurs yi nekk ci bureau d'accueil daal di nemmeeku ba taxoon ñu nekkoon ci ab séminaire ñoom nag li ñu bëgg mooy ñu càmbar bu baax seeni nekkin gën koo dooleel.

Euh, ci walu kon euh, xumbon euh, loolu ci diggante supporter yu Casa ak wa Ndar yi nga xamanteni kon ñomit ñewon nañu ci walu mobilisation ndem sax kon ci cëppaandaw la niñ leen ko waxé dañ leen mujj dóor ñetti ball ci ben des na ci dellusiwaat attaque Pape Fara Ñing ñaari tali mom Pape Fara mu melni kon baxna ñu tewlu kon résumé ñaari match ñu leen ko Zouane Kaza ak Jaraaf euh, Linguère ñetteelu ndam gannaaw ba nga xam ne mu ngi yor jaraaf bu ndakaaru kii di coach Amadou Diop Boy Bandi nag ak équipe am bii di jaraaf bu ndakaaru ñu ngi yéeg ci classement bu Ligue 1 sénégalaise bi li ko waral nag moo nekk booloo bi ak état d'esprit bi am foofu ci équipe bi. bu ñëwee jàpp wax dëgg yàlla xale yi gëm ko parce que xale yi rek la c'est les mêmes jours ñoo fi nekk ba léegi buñ ko gëmee war nañ si mun a génn parce que on a une bonne bonne équipe mais que xam nga à force ngay jouer résultat ñëwul day sàppe sa moral donc lolu atteindre woon équipe bi mais je pense que légui mu ngi commencer, dañ bon dañuy sante yalla rek mu continuer si lancer bi ñu nek ni dal ci première mi-temps bi nak ñu sonal len entraîneur intérimaire bu Linguère bu Saint-Louis japp na né milieu terrain bi mo doxul looloo waral bi la défaite. que suñu deuxième ligne bi mo amone problème c'est nan la ñu couvrir côté bi nga xamné fofu le la si alors que disposition ñu jëlone c'est pratiquement presque faire de sorte que euh, nous couper la trajectoire bu bu bu bu ñëw si Siré. mais on l'a mal laataa loolu nag kii di Casa Sport teg na ay jéego yu baax ci championnat bu Sénégal vert blanc yu Casamance yi nag ñoom ñoo daan ñii di AS Douane ñaari bal ci dara ndam lii nag tax ba ñuy dundee yaakaar ci club boobu. du caagee ni dañ doon football lu baaxul dañ doon football football bu ñu yàgg football mais dañu am woon chance nag change bi nag comme yàlla def na ne tey ñëw na ñun daal lañu ñuy continuer jouer comme ni ñu yàggee jouer daal championnat la ñuy di jéem a gagner suñu match comme ni ko yàgg defee daal. rek comme ñëpp. li gars yi bëgg moom lañ bëgg jouer championnat malgré que ñu ngi ci suuf mais li des bëri na. mu nekkoon nag ci stade bu xumb lool ak waa Allé Casa yi dem pousse seen doom yi fi mu toll nii nag Casa Sport génn na ci suufu classement bi. ñaari euh, tali mom euh, euh, Mbour Petite Côte ben balkon ci dara le résultat résultat douzième journée kon ni le teddé douane kon danou ci kanamu Sport Linger jaraf mujjee kon 3-1 sunéor ñambour ku ci Mbour Petite Côte Mom, momit it danu ci ben dara altine kon ñaari fan ci weeruk mars manama de ji ci stade Fodé ni bu ñeenti waxtu tegee fanweeri simili stade de Mbour ak Port danañu fa euh, jongante AS Pikine ak euh, ISO euh, naka noonu waaye football club ak Ngor ñoom it danañu am jàkkaarloo boo xamante ni war nañu ko séq yegg si kon ci li nga xamante ni moo di dossier bi altine ju jot nañ koy defee wàllu ko lay doon kon. tey njàng mi la ñu indi ak xale yi nga xamante ni kon dañuy dund ak handicap maanaam laago seen wàllug njàng ñu jàpp ni kon yombul jumtukaay yi nga xamante ni moom la ñu yittewoo lu ca bari kon sooke na rax ci dolli école yi leen war a toppatoo foofa it gis nañu ni manqué na kon bu baax a baax mu mel ni ci loole lépp waajur yi ñoom ñoo ciy gën a sonn ngir seeni doom am xam-xam ba tax na bëgg nañu kilifa yi gestu leen Aminata Mbaare saw ci bërëb bi dañ fiy dalal ay xale yoo xam ni seen bët daa muuru Mamadou kebe mbay ci ñoom la bokk moom nag élève la en classe de CE2. ay calculaaf lañ def nga bind fii ba pare làmb ko bind ko fii calculer ko après mu def résultat résultat bi. 205 plus 37 égal 242. classe inclusive laa yor. maanaam am naa trois yoo xamante ni am nañu reste visuel ak deux yoo xamante ni ay non voyants lañu mais cours yi changé wul looy def ak ñeneen ñi moom ngay def ak ñoom. jàngale ci classe boo xam ne ñi seen bët muuruwul ak ñi seen bët muuru doon na lu jafe bu ñu sukkandiku ci jàngalekat bi. ñi nga xam seen gis demeewul noonu ñooñu dañuy bind ak poinçon mooy seen bic ak tablette. moom la ñu yor moom la ñuy bindee braille jafe-jafe bi mooy am na si ñoo xam ne dañu bi sen loxo dafay diis trop pour ñu bësal la génne la li nga bëgg pour maîtriser capter ñom la gëna yomb mais bu féké bind bi day xawa a yeex tuuti. bu sen maître bu nekkee ci école bi maître bu da fay liggéey mba pare ñun dañuy gëssanté ak maître bobu mu wax ñu xalé bi fan la soxla ñu appuyer ko ñun bu démé fofu la ñuy concentrer suñu aide ak suñu appui ci xalé bobu mu doon lu diis ci yenn kat yi waye tamit lu metti ci ñi nga xamni ñoy parents d'élèves mère Ndioba ñaari xale yi mu àndal ay sëtam lañu ñoom ñaar ñëpp seen bët daa xanaa soriwaay bi ñuy jaabante di dem di ñëw bi daal loolooy loolooy ci xaw a jaaxal. suñu sañoon daal ñu ah, may leen bu dee kaar sax ñu ciy dugg. li jëm ci jàngale xale yi nga xam ni dañoo amee laago doon lu metti fii ci Sénégal lu bëri daal di koy waral. machine bi nga xam ni moom la ñuy liggéeyee au niveau du centre verbotenal lim la permettre mooy dix personne nga mën a jël école bi nga xam ne fa la ñu formé jàngalekat yi école yi ñu ci am Sénégal wax dëgg fa yàlla formé guñ ci ni ñuy jëlee waaye laa ci école élémentaire. école doctorale c'est un problème la pour trouver ressources humaines yoo xam ne dañoo pointu vers euh, li ñuy jëlee xale yu waay ci classe yi. ministère de l'éducation nationale ci budget bu ren daal dinay dugal lu toll ci millions de francs CFA loolee nag daf koy def ngir équiper école yi ñu ko jagleel gouvernement. partenaires sociaux bonne volonté ñëpp ñu leen di woo ngir ñu jàppale xale yi ndax bu ñu màggee ñu mën a jot ci li ñuy yootu. su ma màggee su ma jàngee ba pare oto dara laa bëgg a doon. ministre bu jigéen. gërëm ko moom Aminata Mbaare Sow yegg si kon ci patch euh, bu mujju bi ci xibaaru digg bëccëg gi tey ji kon euh, revue des titres euh, lañuy dik ak l'observateur nak nag koy tambalé l'observateur mom ci li nga xamanteni dal mom mo xewon xewoon ca Casamance guerre bobé daal na ci dik ci li ñu nan kon jaño mu duppé ko le film d'horreur di dellusiwaat kon ca ñaawteef yi nga xamanteni def nañ ko fa waxna it ci maître Abdoulaye wad gannaaw kaddu nga xamanteni yëkëti yëkkati na ko nee kon weesu kon melou manga kon au fond du trou mom euh, njiitu euh, soppi kaddu yooyu nak mu jibal maître Sidiki Kaba jëriñ ji ñu dénk wàllu yoon xam ni euh, président Macky Sall bëggut won ñu top ko ci kon mom maître Abdoulaye Wade ci l'observateur del Sina ci tournoi tafatin nak ak waite gi waaye it Amazos non, kon lay ci premier round bi Sud Quotidien mom ma ngay wax ci mbirum emprunt obligataire mairie bu Ndakaaru mom la def kon ci bu ni kon parti socialiste euh, déclaré na guerre bi ki nga xamante ni kon euh, Amadou euh, Ba ci walu Abdoulaye Daouda Diallo mom wax ci leneen mbirum droit yi doole mi ñu fi doon wax ni xawna fe kon un pays n'est pas nee na réew mi du fo xamanteni dal marché la bo xamanteni lu neex way def rek rawatina saa su la neexee rek nga ni damay ñaxtu muy tontu nonu kon Amnesty International ci bir Sud Quotidien la. Pape Diop ci wàllu politique it foofee la yëkkatee ay kàddoom njiital bokk gis-gis ni nag dañu war a taxaw euh, ñoom ñëpp nag booloo xàccandoo dóorandoo ngir 2017 ñu daan ki di président Macky Sall euh, Walfadjri moom di kat na it ci li nga xamante ni moom moo yëngal kon euh, république bi

ak euh, safara wax na ci éliminatoire basket afro basket 2015 ni nga xamanteni gaynde yi noné lañu len leen gàcceele stade Marius Ndiaye le soleil mom dellusiwaat ci lancement campagne bobu ñu nane consommer local fi ci géejewaay la won lu toll ci fukki milliards ak juroom ben né nañ kon danañu ko ci def ci walu fond ngir walu karangé euh, ci mbirum euh, lek gi jëwriñ ju jëk ja téwon fa fofé it la waxé di président Macky Sall mom amul jot di addu ci yenn cadre yo xamanteni

jox nañ leen ko ñoom sànni nañ ko fële loole nag eh, gannaaw ndaje mu bari woon coow seen digg ko nag eh, nguur ji eh, samedi la woon loole itam coow ca Sédhiou la woon bi yoon fanweeri millions yi xamante ni président Macky Sall moom jox na ko fa kilifa diine yi ngir ñu war kaa séddoo loolee kon ci coow la mujjee lu muy bañ coow Jean Paul Diaz ba daal bëgg na ñu daal di ci teel a taxaw moo di rotation yi nga xamante ni South African Airways wàññi na ko fii ci aéroport bu Ndakaaru nee na kon bala lambay di ñaw mom Jean-Paul Diaz nañu xol euh, lu waral kon euh, lu ni mel emprunt obligataire bi it parti socialiste bolon nañu ci ginnaw kon euh, Khalifa Sall le populaire Mom mergo goo Njitel forum civil mer nako mom le la xëyee tey ci lu soxal Abdoulaye Wade Karim Wad Maki Sall ci mbirum kon alal ju lewul ji ñuy topé ñen ñi njit li xam le kon forum civil ni moom mënta comprendre yaafus gi ci nguur gi boole rawatina gannaaw kàddu nga maître Abdoulaye Wade yëkkati na ko mu gis ni euh, rébellion la jëmale kon ci wàllu ki yoon mu ni Karim Wade li mu def euh, détournement de l'État la gis ni moo gën a garaaw li ñu koy toppee ci wàllu koppar ndem moo ko def wala kon euh, deful mu gis kon ni président Macky sàll dafa war a damit ba ca cëppaandaw la ñaar fukki nit ak juróom yi nga xamante ni liste propre liste boobu jox nañ ko procureur ci ñu ñu war a topp kon ci alal kon ju lewul mu ni amul tànn kii bàyyi kii ñaar fukki juróom nañu saytu seeni mbir ñu dalé ci le quotidien mon rapport annuel direction protection civile euh, xeyé euh, ci lolé nak 2014 mom gis na ni ay yàqu dong la juroomi téeméer ak juroom ñaar fukki nit ak juroom ñett yu faatu ci ay accident euh, téeméer ak juroom ñen fukk juroom ñett yo xamanteni ñak nañ seen bakkan ci ka lap fukk juroom ñent yo xamanteni lu jëm kon ci foudre bi mom mo len ray mu gis ni yàqu-yàqu yi kon jéggi dayo lenen lo xamanteni kon Aliou Sall kon wax na ko moom maître Abdoulaye euh, la waxal nee na daal vieux Charles sans cheveux lol nak euh, ci biir le quotidien la fa la fekké en riz euh, mi ñu ni accélérer la cadence ñu jël photo ju jëk ji euh, le témoin témoin quotidien mom marché gré à gré bi ñu ni kon kon def la le lu toll ci ñetti kon milliards centrale bu Mboro ñu englué dans ses contradictions madame Dal Eh, kàddu nga ni yëkkati na ko ngir indi ay tontu ci boobee dossier la ñu gis ni eh, dafa gën a jaxase mbir mi Birahim sekk ni eh, confusion bi sax moom Aly da koo faf yokk ci wàll woowu dikki na it ci wàllu tàggat yaram sama Balde Tafatine guy gi nee na kon xeex ci wàllu doole tàmbali na wax na it ci coow li dox diggante nguur gi kon ak maire bu Ndakaaru parti socialiste ma nga ciy soutien ma nga ciy soutenir kon maire bu Ndakaaru Afro Afrobasket Basket, ku le témoin gis fa kon gaynde yi eh, éliminé sport la ñuy eh, ñom ñu tambalé kon 11 buts yo xamanteni def nañ ko 9 eh, la Papis Cissé ñu phénomène ci walu kon diko ci woné ci walu ko basket gaynde éliminé it né nañ dañ la ci Afrique eh, dik nañ ci tak eh, doublé boo eh, Ngor Pikine def nañu ko ñu rafetlu ko wa sport kon ñom ñoo waxé nonu naka non it àdduna ñu ci tournoi TNT nenañ dañ koy tambalé ak Gassama Baldé Tafatine kon guuy gi yene kaay mu melni kon li lañu xeyé tay ji ñu don ko faram-fàccee rédaction bi di len gërëm ci and bi ak télévision Futur Média inshallah à 19h30 nañ delu ci ak 20h bu boba ci yeneen xibaar lay doon ñu yendu jàmm.